dinañ fournir seen casier yi fekk li parti ak coalition yi ñaanoon ministre de l'Intérieur bu leen ko mayoon unité serait présente sur toute l'étendue du territoire national loolu mooy li nga xam ne te incha allah campagne te incha allah également résultat yi chef indi maa ngi lay gërëm bu baax si question yi ma posé question bi njëkk bi mooy am dem bi ñu créé woon en deux am dem c'est agir avec Macky pour le développement de ànd ak Macky moo nekk président de la République Macky Sall pour voir mu jàppale ñu ci nguur mu développé ñu ànd moom si ngor ak ci njëkk ak teraanga lu mu xew ni ñoo ci moom lu ñuy def fi nguur ñu nekk si liste ñu bañ si nekk ñu oo nit ñu ci oo bu dee Macky Sall la ñoo ci dara ko fekk ba yàlla def li muy def juillet deux mille vingt trois mu taxaw mu ne dootul présenté waat élection yi ñëw ni mu demee ñëpp xam nañ ko mu jël ci réew mi dem ñun tamit ñu jël paas Macky Sall ñu tourné ko ñu bi paas bu bees ñu bi paas bu bees mooy créé parti bu naan unité fas yéene dem ci élection yi mu doon suñu première élection ñu fas yéene cee xam suñu situation de référence waaye objectif bi mooy ca kaw a kaw loolu mooy li nga xam ne moom laay toll si première question deuxième question bi Cheikh Issa Sall nekk ko nguur nguur boo fi génnee yi ma bokkal na daanaka ko def nguur boo fi génnee yi ma amante ak ñoom wóor na leen dara doon du des nguur moo ma teral simmi sama robu magistrat de la cour des comptes bi ma ko jigéen bi ma si jógee ba tey département Rungor amul beneen magistrat de la cour des comptes nguur la ma bàyyi nguur ko mënuñu maa def lu ma leen di bàyyi li ma wax góor li ma wax góor li ma wax góor première fois ñu gis sama parti politique national si région nekk biir moom li nga xam ne ñoo ko doomu nguur conférence de presse bi mënoon naa ngee saal teeru bi mënoon naa ngee saal Radisson mën naa fi saal gudde wala atalaay wala kii faa palaas boo ko def nguur laa koy def sëñ Modou Sarr jógee Dakar ñëw fekk sama góor te di jàmbaar bu mag biir Dakar ñëpp am tey waa ji nga tuural ñëw fekk sama góor léegi dem baay bu mag fonko sama doom baay jógee Tiwaawan ñëw Mbuur waaw donc man loolu laa ci fekk waaw moom lu ma am ñoo ko moom su ma xëyee ñëw lay xëy su may góor ñëw lay gotum su may nelaw sax ñëw lay génn Mbuur mënuñu nit nag nit nag ñi dëkk ñi nekk di dox doxu maanaam di tëb rek di dem da ngay teg bu mu dëgër nga jël tànk yëkkati beneen tànk bi teg waaye dox booy cëppi jët dox bi du rafet te bala ngaa àgg fu ne ñoom tey benn tànk ba mu dëgër mooy indi leen am ba ñëw ci mairie bi te en deux ku def bii mu di la xam ne kat am jëm am na njëriñ diggante bi ngay yëkkatee tànk boobu bi ngay tege tànk bi ngay yëkkataat beneen bi nag taagaay daf ci am maanaam diggante ci mairie bu ak am na ñoo xam ne man na jaar si diggante bi lu dëgg waaye du toog dara barki démb la moo sàll bee ak ñoom Adama Sall def tuur la ñëpp neuf nañu te ci bu leen daan yëpp li mu leen na defal daaw daawaat jéeg daawaataat jéeg ren jéeg lu war a war a defal région Mbour yaa ngi nekk Dakar seen région amuñu nekk bi ci ginnaaw ba nit yaa ngi fi loolu lañ leen defal lu ko waroon a defal ñu fi waaw kuréel yaa ngi fi dama leen daan defal lu ko waroon a defal bu ñu la tiiri ci semaine bii li ma génn sama xaalis pour tey si émission génn ma ko daaw génn ma ko daawaati jëkk kon waaw bu man ñoom laa xam ñooy sama doole naa fi am benn fois ma bëgg leen dix fois ma bëgg leen cent fois ma bëgg leen nga dem Thank you. bële su bële bële seen ñi ma fekkee sama noonu yi su xamal ne dama bàyyi wax mu ne bu wax mu mu ngi mu du dëgg ku bëggul sa bopp rek dem ci élection ndax dina mën a am résultat yu yu dëgër en matière élection léegi Sénégal Sénégal moom léegi ñëpp war nañu gëm aaya boobu yàlla di wax ci alxuraan ne qul illahumma malikal mulk tuutil mulk man tasha yàlla moom moo moom nguur te moo koy jox ku neex élection yi ñu génne war na tax léegi Sénégal yëpp gëm ne alxuraan du du loolu yàlla waxoon da koo dëggal ci élection yi wees moo tax kenn nekk fi yàlla rekk fi nekk nit ki dangay gëm sa bopp wóolu yàlla gëm ko loolu moo ñu dal waaye loo xam ne yaa ngi ko créé matul vingt jours nga présenté liste bu mel ni liste bii ñu présenté te bi ñu demee mais te bi ñu demee intérieur di déposé sur liste defuñ fa quinze minutes au moment coalition yi ngay wax dañ faa fanaan ba bërset ñun quinze minutes defuñu ko ci dépôt bi ndax liggéey bu jaar yoon fii lañ toog pendant deux ou trois minutes fii sama biir kër liggéey ko liggéey bu set comme ni ñuy liggéeyee depuis bi nekkee ci administration ba tey ñëw toog ak waa daaf lu ñu la laaj nga jox leen ko ba bi ñu paree da la félicité ñu génne moo tax bi ñu def journaliste yi bi ñuy couvrir dépôt yi kenn gisuñu si boo fekk déposé nañ bu yàgg ni ñu yàlla dimbalee si si dépôt yi ñu déposé amul benn observation bu gën a ndaw lépp nickel yàlla mën nañoo dimbalee noonu si élection yi tamit nit ñëpp gis unité yàlla dugal ko seen biir xol yi ñu votal ñu parce que dégg nañ discours bi xam na ne unité moo mën a génn Sénégal situation bu bon bii mu nekk actuellement loolu mooy sunu yaakaar bi ñu am si mbir mi waaye nag ñun lépp lu ñuy def walla di fa dem dañ siy jiital sunu borom lu mu def noonu la li nga xam daal moo dépendre si mooy ak njàmbaar mooy taxaw mooy bëgg lu baax mooy doom jëm sa mooy bëggal ko Sénégal loolu moom dara luy manqué ni tarfatal ay ni du am si yoon yi buñ si waree bàyyi suñu bakken bi du am problème waaye lépp lu ñu war a def dinañ ko def li des nag ñu jébbal ko suñu borom yi nga xam ne moom dong mooy décidé lu mu décidé rek ñu xam ne loolu mooy Euh, loolu def naa ni jàll nañ ko nag bu ndax dañuy xalaat suñu bos bi ñu téye ko de loolu jàll nañ ko parce que liste définitive yi génn na par arrêté suñu bos mooy numéro 12 jàppaleen numéro 12 nag jàppaleen numéro 12 jàppaleen numéro 12. Cheikh mooy laa ilaha illallah. laa ilaha la. Muhammad Rasulullah douze la Cheikh Ahmad Tidiane douze la Cheikh Ahmad Bamba la jàpp leen numéro douze ñu ngi numéro douze te boobu jàll loolu jàll na léegi li fi rek mooy intercoalition yi ñun de pour le moment ñu ngi ak coalition bi parce que tamit euh, comme ni ma ko waxee rek il faut que jeu politique sénégalais bi ñu leeral intercoalition yi fi amoon ba le paas gis ngeen fi mu mujj ni mu tasee tasin mu ñaaw ba mu tas ak lu mu indil problème Sénégal si instabilité géopolitique sénégalais bi il faut mu leer bu population sénégalais yi bu ñuy voté ñoo xam exactement lan la ñuy voté mais calcul yi dafa bëri te calcul yu bëri yooyu nag moo ñu indi ñun toujours ay problème bu dee chantier nag ñu mbuur yi ñu ngi si di ñaan suñu borom trois ans yi ma waxoon waa mbuur bala moo mat la ma leen digoon mu mot mu mat ba ñu weesu ko un dix cent bi ñu appliqué ko ba dako bi nga xam ne dafay nekk di pointé balaa trois ans yi fekk mu pointé lépp di leen wax ne nag fi mu nekk nii départ bi top départ bi ñëw na ku nekk ka nga gën a jege ka nga gën a miin fa nga ami mbokk fa nga am say wasi la nga fa dem nga yóbbu voila fa unité wax na léegi ba wax njàng mi suñu président de la république ñëw na lycée Demba Diop indil ñu bale ñu ngi koy ñaan buy ñëwaat nañu indil projet parce que lycée bi dañ ko war a raser ji defaraat ko bu mu baax bu dee bale rek bu dee trois mois ñu ngi koy bale ouverture yëpp ñu ngi koy bale ñun daal li ñu soxla mooy ku ñu raser lycée Demba Diop bi defaraat ko bu mu baax espace nga fa am nañ lépp lu ci lu mu soxla du bale lañ soxla ci lycée Demba Diop liñ fa soxla mooy batiment bi menacé ruine élèves yi nekk ci dans la promiscuité conditions yi melul na mu war a mel te ñu am espace nañ ñu defaral lycée bu moderne si espace su lycée Demba Diop bu ko defee sunu doom yi ak sunu jarbaat yi mën a continuer jàng nu mu gën a baaxee li si des nag mooy comme ni ma ko waxee rek mbir moom démarré na liste yi génn na tey numéro 12 fële na muy coalition unité ah, naka ñu yóbbu fépp ñu wax ko fépp ba liñ ci bëgg yàlla defal ñu ko ñoom ay député yoo xam ne bu ñu demee assemblée nationale duñ fa xeex duñ fa xuloo duñ fa pàdde do jigéen duñ fa yenu ay urne duñ fa def naka sudul noonu ay député yu civilisé yu xam seen bopp yu xam li leen fa yóbbu yoo xam ne dañ fay taxaw ko intérêt sénégalais yi ay député yu baax député yu mérito Sénégal loolu la ñuy ñaan suñu borom te jàppal na suñu borom dinañ si jàppale asalaamaaleykum wa rahmatullah maa leen gërëm waaye ñu def ñaan rek te daw gaaw